yaa xayra dayfin ataa bil bishri wal madadi ahlan wa sahlan wa tarxiiban bilaa adadi. asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu mbokk yi ñu ngi leen di nuyu di leen ziar di leen ndokkeel bu baax a baax a baax di leen jaajëfal waaye itam mbokk yi ñu teew ci barab bu sell bi nga xam ne moom la ñu nekk. ci biir jumaay ku tedd ki sëriñ Touba Cheikh Ahmad Bamba Xaadim Rasoul fi nga xam ne moo di dalluwaayu muxadimatul xidma ñi nga xam ne ñoom la sëriñ bi dénk lépp loo xam ne jëm na ci saytu barab bu sell bii muy jumaa ji jotaay bi nag mbokk yi tey di jotaay bu am solo jotaay boo xam ne jotaayu pastéef la jotaayu pas-pas la jotaayu dogu ngir jàpp ci liggéey bu barkeel bi nga xam ne moom la sëriñ bi dénk kuréel gii di muxadimatul xidma muy kuréel goo xam ne sosu gi mu ngi bàyyi ko woon ci sunu jàmbaar ji Cheikh Abdou Samad Mbacke ibn Sëriñ Chouaïbou Mbacke taalibeb sëñ Tuubaa bi nga xam ne jógam ak dalam yitteem lépp sëriñ bi la ko jox ak jotam lépp sëriñ bi la ko jox mu xalaatoon kuréel goo xam ne dañu ko sosoon nag ngir di ci dajale lu ñu am ngir dimbalee ko ñi nga xam ne ñoom ñooy taxawu pàkk bu sell bi ñooy taxaw barab bu sell bi muy jumaa di kuréel gii di muxaddimatul xidma ginnaaw ba mu ko taxawalee ba noppi nag ànd ko ak i mbokki taalibe képp koo xam ne jàppoon nga ci ci sa doole ak ci sa alal lañ ca jot dajale mbokk yi loolu la sëriñ bi sant ñi nga xam ne ñoo di ak njabootam ci njiital sëriñ Ahmadou Mbacke moom Cheikh Mouhamadoul Fadal Mbacke moom sëriñ Chouaïbou Mbacke mu ànd ak sëriñ Mouhamad Hafiz Mbacke moom sëriñ Abdou samat ngir ñu ñëw fii ci kanamu Muxaddamatul euh, Xidma ngir nag ak sëriñ Falilou euh, euh, sëñ Fallou moom ak Cheikh Amadou Fadal Mbacke moom sëriñ Abdou samat Mbacke ñu ñëw fii ci kanam kuréel gi di Muxaddamatul Xidma ci njiital imaam sëriñ Afiya Bousso waaye itam ñu war a yëkkati ay kàddu yoo xam ne nag mbokk yi yu jëm ci kuréel googu la waaye itam jëm ci li waral jotaay bi Euh, nga xam ne kon njabootu boppam googu dañoo ñëw tey ngir jébbale at yi yooyu nga xam ne moom lañu ñu jotoon a dajale teg ko ci loxoob imaam Serigne Afia Bousso ak waa Muxaddamatul Xidma ci kaw loolu kon danañu jébbal kàddu gi ki nga xam ne moo di Serigne Abdou Lahad Bousso bu ko defee moom dana gën a yëkkati kàddu gën a xam li nga xam ne moom moo di kuréel gi ñu gën mu gën koo xam le waaye itam ni nga xam ne noonu la ñuy def ngir mën a barkeelu ci kuréel googu dana ko gën a leeral bu ko defee nag euh, sëriñ Abdul Ahad euh, Bousso mi nga xam ne moo di euh, sëriñ Abdul Bousso dana ci yëkkati ay kàddu sëriñ Fàllu mi nga xam ne moom la sëriñ bi yabal mu jiite délégation bi moom it dana mandargaal li nga xam ne moom la ko sëriñ bi yónnee sëriñ Ahmadou Mbacke mi nga xam ne moom sëriñ Fàllu Mbacke moom sëriñ Chouaïbou dana mandargaal li ko sëriñ bi yónni bu ko defee nag imaam soog a tëj jotaay bi kon sëñ Abdul Ahad ñu bàyyi la ko nga yëkkati kàddu yi leeral yi bismillahi rahmaani rahim asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu bokki jullit yi bokki taalibe yi ñu ngi leen di nuyu di leen siyaara bu baax te di leen ndokkeel ci weeru tedd bi nga xam ne moom la ñu dëgmal te teru tey yi ñu war cee dugg subak ak jàmm incha allah di ñaan suñu borom mu nangul ñu suñuy koor te may ñu kàttan kàttan guñ ko mën a defee eh, mu bañ am benn rëq-rëq barakati xaadim rasul eh, jërëjëf sëriñ bi ni nga ko waxee ubbi nga jataay bi ci leeral li ko waral Euh, li waral jataay bi mooy euh, sëñ du Samad Mbakke moom seriñ sëriñ Sohaybu kenn ku nekk xam na ko ci bëgg lu baaxam ak ay taxawaayam ci yoonu murit ak ci lislaam waaye rawatina ci daayira Muxaddamatul Xidma ci diir bu yàgg ba mu sosoo ba léegi waaye rawatina jumaa ji ci boppam ak ñi ciy yëngu loolu tax na saa su nekk waxtu wu nekk soxla sépp soo xam ne euh, jumaa ji am na ko ak lu mën a doon ay taxawaayam da cay fés ci la demee nag ba gis ne jumaa ji kat dëgg la ñi ngi koy taxawu ci wàllu entretien di ko taxawu ci wàllu set ak setal ak yu ni demee waaye ñi ci nekk di yëngu nga xam ne waxtu wu nekk ñi ngi fi eh, jeexal fi seen temps bépp ñooñu taxawaay yi war nañ si na koo gën a dolli ci la waxtaanoon ak sañaa fi mii nag ne dafa bëgg sos benn kuréel boo xam ne daf koy tuddee xuddaamu ahlil jaamia mooy liggéeyal ñi nga xam ne ñooy yëngu ci jumaa ji ñooñu nag Euh, mooy imaam yi ak noddukat yi ak balekat yi ak ñi nga xam ne dañ ciy yëngu ñuy dajale ay addiyee yoo xam ne bokki taalibe yi ak bokki jullit yi ñoo koy dajale par weer lu fi ñëw ñu ñëw seddale leen ko nga xam ne loolu nag jote wut ak liggéeyu daayira Muxaddamatul Xidma dara loola moom ak kuréel la boo xam ne dafay bëgg daal bokk taalibe bu nekk na ne daal tey jii naa joxe addiyee ngir ñu joxal ma ko ñay yëngu ca jumaa ja lu fi dajee mu seddale ko loolu nag weer ci ginnaaw jàpp naa ne bi ñuy ubbi compte bi mi ngi doonoon euh, le le 9 février le 9 février le 9 jiitu na loolu sax biñ màggalee ba noppi rek daanaka lañ ko ubbi ginnaaw gàmmu rek daanaka lañ ko ubbi waaw ginnaaw gàmmu lañ ko ubbi euh, boobaak léegi nag li fi daje kuréel bi ni mu ko sose nga xam ne euh, Sëñ Afe mii dafa. daf maa yabaloon man ma teew ca nekkal fa mu muxadimatul xidma sëñ fàllu mii moom sëñ Abdou moo ko joxe woon ne na ko fa nekkal ak sëñ fàllu Mbàkke doomam waaye nag taalibeem boo xam ne mooy sëñ Mor Diouf nekk ci marché Colobane def ci liggéey bu rëy rëy rëy boo xam ne moom daanaka mën nañoo wax ne daanaka addiya yi sax moo ko dajale waaw muy taalibe boppam boo xam ne ca marché ba rek lay nekk di laaj waaye ak sëñ fàllu Diop mais nga xam ne moo nekk Angleterre moom tamit ci kuréel bi la bokkoon ak sëñ Assane Diop mi nga xam ne mooy coordinateur diaspora bi ñoom ñëpp nekk bitim réew ñooñu ñoo composé woon liggéey bi waaye liggéey la boo xam ne ñëpp ci bokk kon aaje nañu leeral ci ne jubluwaay bi ci Sëriñ Abdou Samad am mooy képp koo xam ne mbokkum taalibe nga wala mbokkum jullit nga muy seetaan image bi wala nga di ko dégg mooy am na kuréel goo xam ne daal li ko tax a jóg weesuwut képp ku dugalal ab dërëmam moo xam téeméer wu nekk nga joxe ko par weer waaye fan lay jëm lu fa weer wu nekk ñu séddale ko ñi nga xam ne ñoo bàyyi seen yitte yépp di defal sëñ bi li ko gënal muy di ko taxawal barabam bii ci diine ñi jiiteeg ñi jàng kaamilam beeg ñi fi sax foofu la liggéey boobu jëm euh, li fi jot a daje nag la sëriñ bi yónni ay njabootam nii ngir ñu indi ko su ko defee moom ci boppam nag xam naa dana ci yëkkatiwaat doom ngir gën koo leeral waaye balaa booba ñu leeral leen tamit numéro compte bi nga xam ne sëñ bi ubbi woon na ko muy numéro compte PAMECAS muy 24 994. 24 994 képp koo xam ne dem nga ci Pamecas bu mu mën a doon ci Sénégal loo fa dugal donte téeméer la daana dem ci eh, compte bi nga xam ne day ñëw ci waajumaa ji su la neexee tamit nga jaar ci numéro yii nga xam ne am na Wave am na Orange Money muy 77 509 78 78 wala 77 509 58 58. su ko defee xam naa danañ ko affiché ci écran yi ngir mbokk taalibe yi gën koo gën koo gis waaw boo demee ci ci pamicas tamit boo nee xuddaamu ahlil jaami rek euh, laa laa bëgg laa bëgg a dugal sama addiye xuddaamu ahlil jaami wala nga ne kuréel bii jàppale waa jumaa ji rek ñoom nee nañ danañ ko affiché ci seen ci seen kii yëpp bu bu bu kii bi génnee incha allah danañ ko affiché ci seen ko ci seen cellules yi ñu am ci Sénégal yëpp ngir fas yéene tamit ñoom jàpp ci loolu daal moom lañ bëggoon a ubbee leeral ko su ko defee xam naa dañu yemale kàddu yi foofu xam naa sëñ bi bu ñëwee moom dana ci defaat kàddu yi soññee yoo xam ne dana gën a leeral liggéey bi asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. bismillahi rahmaani rahim wasalaatu wasalaamu ala rasulillah asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. ñu ngi yëkkati nuyoo bu tedd. bu jógee ci suñu kilifa sëriñ Abdou Samad Mbàkke moom sëriñ Chouaïbou jëm si ci kuréel gi nga xam ne mooy muxaddamatul xidma te yëngu fii ci jumaa ji ci njiital suñu maam suñu waajur sëriñ Xaafiya Buso ak mboolem kilifa yu tedd yi ñu fekk sëriñ Abdul Ahad ak mbokk yëpp euh, sëriñ bi wax nañ fi ñëw tey ànd ak sëriñ Mouhamad mii di doomam ak sëriñ Fàllu Mbàkke mee ñu àndal ak yeneen mbokki taalibe yi nga xam ne ñu ngi ci biti Euh, yitte ji nag euh, xeebu gi dafa waral euh, nee na tax na bëggutoon a ñëwal boppam ndax na mu ko bëggee ak fi yéene ja àgg waaye li waral rek nee na kàddu yi mooy yëg gu mu yëg ne lii ngeen nekk képp koo xam ne taalibeeb Sëñ Tuubaa nga nee lépp lu war ci yéen kuy taalibeeb Sëñ Tuubaa yoo la war ndax wolante gi bàyyi gi seen yitte di ko xayu di bëccëgu di guddiwu xamu amu amu amu leen bisu événement amu leen bisu dara lépp ngir nekk ci bërëb bii nga xam ne kenn ku nekk ci ñun bu ngeen fi néewutoon kenn ku nekk yaa ñëw nekkal fi sa bopp te loolu taalibe Sëriñ Tuubaa yëpp yi ne ci biir réew mi ak ci bitim réew ñoo ci maase xam loolu kon neen yëg googi mu yëg lool yi moo waral comme ni ko Sëriñ Abdou Lahad waxee léegi mu amoon xalaatu euh, sos kuréel goo xam ne Euh, xëy na yaatal gi amagul sax waaye Pastef moo moo moo waral jéegu bi am ci ndax kuréel gi bi mu ko xalaatee jubluwaay bi lenn dong la mooy jàppale ñi nga xam ne dañuy yëngu bàyyi seen lépp amuñum xëy amuñu dara lu dul xëyal Sëñ Tuubaa ci toolam bii ñuy wut àddiyee joo xam ne foo waay mën a nekk ci biir réew mi ak bitim réew loo am tàmbalee ci dërëm ba fu mu mën a toll ndax dara tuutut ci ñoom waaye dara rëyut ci ñoom it ndax liñ taxawee ñu di ko dajale nu mën a toll ñu dugg indi di ko teg ci loxol waa mu Muxaddamatul Xidma ngir mu jëm ci ñam war a jëm nee lool loolu rek mooy mooy mooy mooy yitte ji nee na mu di ci sant nag bu baax mbokki bi yi nga xam ne xëy na ba mu koy wax ci jotaayam la ko doon wax joxe yéene ja ñoom ñu dajaloo def ci yitte ju foor joo xam ne tax na tey jii bi ñuy dugg ci koor gi mu mën a am as loo xam ne mën na koo teg ci loxol Muxaddamatul Xidma ngir tàmbalee ko loolu loolu yi kon moo doonoon moo doon moo doon yitte ji ni ko sëñ Abdul Ahad waxee it nee na am na yéene yi def ci soññee boo xam ne moo koy defal boppam ngir gën koo yaatal ci mbokki jullit yeeg mbokki taalibe yëpp ndax yaakaar na ne lii moom xanaa ñàkk xam waaye képp ku bëgg lu baax bu ko déggee dina dina fax jëm ci te du ca desal dara kon ne loolu yi moo taxoon mu ne nañ nañ bi euh, bu ñu bi ñu ñëw euh, lii ay seg yoo xam ne lii may njëkk jox sëriñ bi 750 000 moo ci nekk sept cent cinquante mille yi mooy li nga xam ne waa kuréel gi dajale nañ ko ci ay dërëm ak i ñaar dërëm ba mu toll nii eh, ci biñ ko soseek léegi ngir tàmbalee ko eh, li waral fésal gi it dafa xam ne bari waa nañ ñoo xam ne fuñ dégg lu baax danañ ca tàbbal seenub dërëm nee na loolu yi moo tax mu bëgg mu doon ak soññee ci sama kalaas gi nga xam ne xëy na yeggaguñ ko woon wala defaguñ ci woon dara nee na moo nekk nii sëriñ bi mu ne mu teg ko ci sa bëgg nga fasal leen te ñaanal leen ndax xam nañ ne lii nii doonul sax asakay seen yéene te xam nañ ne bu ci ak ñaan amee danañ dem ba mu toll foo xam ne dina dina weesu fii fépp waaye lii ak tàmbali rek la mooy mooy bi ci jiitu mm-hmm. mu wax ne it euh, bi beneen bii ma tiimit di set boo xam ne téeméeri junne ci nekk mm-hmm. mu ne nag moom ci jëmmam moo ko tàmbalee ci liggéey bi loo xam ne addee boppam la joo xam ne moo ko tàmbalee ci kuréel bi mm-hmm. ngir bëggul jiite rek mu doon wax joo xam ne dafay joxe ndigal ñépp di ca def ba noppi moom mu toog di leen seetaan mhm. bu sañoon lu ñu def lu ne mhm. mu jiitu ca mhm. eh, kon mu ne moom it moo ci tàmbalee lii ngir ngir ngir indi ko bu ko doxee nag mu doon mu doon ab soññee ci ñun ñëpp waaw <laughs> jërëjëf bu subaale bisimilah amin yaa rabbi jërëjëf moom ku liggéey kii da nga ko sëriñ Ahmadou ñu ngi leen di nuyu bu baax ci turu sëriñ Afiya ba su mi toog di sunu kilifa di delloo nuyoo bu baax nuyoo gën a tëdd yi gën a barkeel suñu kilifa gi nga xam ne ci ngeen bàyyeekoo ci moom monsieur Abdou Samad mu sëriñ Chouaïb ñaan suñu borom mu tëbb ko kàttan te dolli ko wér te yàggal ab euh, ak dundam ndax dund gu am njariñ la di ko sant bu baax di ko gërëm ci taxawaayu rafet yi nga xam ne amal na ko lislaam jëpp rawatina yoonu mu rek rawatina barab bu tedd bii nga xam ne fi lañ nekk tey nga xam ne dafa mas a nekk yitteem lépp lu ñu fi mas a def wala ñu mas ko fee sumb loxoom a nga ci biir ci ay xalaatam ci ay jëfam ci ay pexem ci léppam mos see desal dara kon nag ñu ngi koy sant bu baax di ko gërëm te di ko ñaanal te di ko wax ne boolam ñu nekk ci barab bi de di yëg nañ ay taxawaayam ci ci noonu yëg nañu it ak jàppam waaye yëg nañu yit ak jàppaleem bu baax a baax a baax dafa mel ni lii tey ab jógaat la waaye njëkkoon naa am yoon woo xam ne moom moomu te ñi ko seqoon la bokk ñu àndoon taxawaloon loo xam ne xëy na lii ca jamono yooye yéene ju mel noonu lañ ci amoon doon ci dox ba dox ci ab diir jamono xëy na moo dikk yëf ya taxaw tuuti waaye sonnoon nañ ci lool kon yéen ji yàgg na ko feeñal àndoon ko ak ay kilifa yu yu yu mag ñoo nekk ca la ca la ci sonn ca lool ba fañ ca yam a yem Cheikh Mouhamadul am na ay jamono ñu indi fii ay bagages jëlee ko Espagne ñu dem di ko jëppale ci keroog daf leen di wax ne waaw kay am naa occasion tey baat boobu la jëfandikoo am naa force force mooy occasion daal di koy firi si noonu daan ne dama bëgg yéen ñii wax leen jox leen digal tey. li ngeen di yëngu ci matériel bi jëm ci liggéey bi muy li nga xam ne ñoom la waa Moukhaddamatoul Khidma di toppatoo lu ama am solo la waaye ñoom ñii koy toppatoo nag damaa bëgg jox leen ndigal yéen ngeen taxaw ci seen wet ndax ñoo ngi ko doon def maak sama yenn bokk taxaw ca waaye dem nañ ba mu diis ci ñun ndax doxinu jamono ak yi nga xam ne moom moo aju ci ci noonu mu bëgg nag yéen ñii ngeen di ci taxaw loola sax te la waa Espagne doxe ba ñoom at mu ne da am nañ keesu social goo xam ne dañ koy indi di ko def ci liggéey bi kon sëñ Abdou ab taxawaay mi jëkkul tey te taxawaay boobee amoon na ca taxawaay bu ama ama am solo kon nag ko yéeneem ak jëfam waaye la joo xam ne sax da koy matérialiser du doon yéene kese rek waaye yéene joo xam ne day fexe mu am la waxtu wu ne mi ngi koy def kon nag ñu ngi seeral ñëpp ne moom day ku am yéene la ci barab bi taxawaay la ci barab bi ku am yëg la ku ñeewante ñi fi nekk la te bu sañoon nag yéene jooju mu am ak taxawaay boobu mu am ak ñeewante googu mu am daf koy ànd ak mboolem taalibe bi yëpp ñu taxawu ñi nga xam ne ñoo fi nekk kon nag na yëg ne moom taxawaay boobu ak ñeewante googu gi mu am ci nun rek sëkk sëkk sëkk sëkk sëkk bu doy ko tuutoon dara itam boole boole ci moom xas na am fu mu nekk ci suñu xol foo xam ne nekk na fa ba noppi kon nag ñu ko si koy sant bu baax di ko gërëm te di ko ñaanal waaye nag di soññ mboolem bokki jullit yëpp ak bokki taalibe yëpp ñu jàppale ko ci liggéey bii ba yéeni joojee mu amoon ca bu njëkk ba mu dem ba egg foofee mu jóg jaajuwaat tey jii taxawaat yéen ji rek waaye nañ ko ci dimbale tey ba bu jógee rek na dox te bañ te taxaw ndax yéene la ju rëy ju rafet te yéene ñëpp jàmm nag bëgg ñëpp jariñu it moo tax bu bëgg mu yaatu te mënoon na rek moom di def lu mu am joxe ndax mi ngi koy def waxtu wu ne jëfa mi ngi ñëw mi ngi joxe mi ngi def la mu man mënoon na caayam waaye yéene ñëpp jàmm moo tax mu di ko yaatal lu ñu la yéene yéene jàmm nag da nga yéene sa bopp jàmm door a mën a am jàmm kon nag lim yéene nit ñi rek waaye ne ci nit ñi fekk suñ ko ci fekkee ñëpp dañ jariñu la way juróom bu baax waxoon rek euh, Cheikh Mouhamadoul Fadel damaa def koo xam ne ma tey bëgg naa jariñu tey bu ma jariñoo ma bokk ak ñëpp loolu mooy li nga xam ne moom la ko wàll moom ba ngottut te bëgg naa jariñu te yéene na ñëpp jàmm Wassare moom ñëpp ñoo koy ànd kon nag na ko ñëpp fekk ci yéene jooju jàppale ko ci ndax loolu rek mooy li koy mooy mooy moom moom loolu mooy mooy li mu jàpp ne moo koy may ndam waaye nag moom am na ndam ba noppi ndax ndamam mooy li ko waroon def na ko am na yéene ji fésal na ko yéene na ko ñëpp yëgal na ko ñëpp la des nag mooy ku wuy si ànd ak moom ku wuy si wutit moom wàcc na asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu moom seede moom man moom ku rafet moom mutu ci man seede nag moom moom mutu ci waaye may moom seede ñun ñaar moom kay mutu moom yëngu bépp boo xam ne itteel na morit gi wala mu itteel diine ji ba moom ba ci dara kenn du ko dégg ci leneen nag loo ko dégg rek xam ne diine soxla ba sëriñ bi soxla waaw yàlla ak yàlla bu am men ndog ak sëriñ bi ñaan ci barke sëriñ bi mu fi mu yéene jëfum àgg fa yëpp na fa àgg ndax xam na lu mu jëf sëñ bi dana ko nangu moom ndax yéen yéen yi mu koy jëf suñu sëñ bi waxee léegi dafa yéene ñëpp jàmm ndax ba mu am na loo xam ne ba mu koy jëf kenn du ko yëg loo xam moo koy jëf mu jëf yu rëy yoo xam ne kenn yëg ñu ñoom ko seq alhamdulilah يا خير ضيف أتى بالبشر والمدد ahlan wa sahlan wa tarhiban bila adadi